nuyu gouverneur nuyu préfet nuyu colonelu bi nga xamante ni moom moo fi toogal service d'hygiène régional bi bootu ci ginnaawam ak euh, agent wu service d'hygiène yi fi nekk yëpp waaye di nuyu maire commune de Thiès Est mais di nuyu Thiès waay yi ñëw teew ci euh, jataayu tey bi nga xam ne ci lañu fas yéene euh, tàmbali fii ci biir Thiès euh, taxawu boo xam ne service di d'hygiène daana ko def gaa ci bërëb yi nga xam ne ca la ñi jotoon a feebar nekk walla ñu jotoon fa jaar waaye léegi ñu bëgg ko def ci biir dëkk bi ngir xam nañ ni am na foo xam ne bu fa mbir mi tollee euh, lii ñuy xeex di Covid 19 war naa mën a nekk fu ne te ñoom seen liggéey niñ koy defee euh, war nañ cee mën a dimbali waaye ñun ñu tàmbalee dimbali ci suñu bopp ba noppi niñ ciy dimbalee suñu bopp mooy comme léegi ñu ngi wax waxu cas communautaire ñu fexe ba ci wàllu sorente yi ñu ciy góorgóorlu fexe ba li ñu sant ci loxo ñu di ko respecté maanaam di set te di ko def lu bëri moytu nuyoo yi te moytu jël loxo jëmale ci kanam waaye fexe ba aussi di toog ci kër yi appel boobu bis bu nee ñu baamtu ko bis bis bu nee ñu wax ko loolu ah, ñu ngi encouragé ñëpp ci ñu gën cee góorgóorlu suñ ci gënee góor góorlu ak orientation bi mbir yi jël ci biir cees ah, mën nañoo am yaakaar ne balaa yàgg mën nañ cee am ndam waaye doo liggéey ba mu toll fenn fi nga yàq ko liggéey moom sëñ Cheikh daana wax ne li ci gën a métti mooy finition bi kon nañu fexe ba wéyal loolu suñ ko wéyalee xëy na du ñu tolli ci situation boo xam ne dañuy obligé ñëpp di tëju wala ñu toll ci situation boo xam ne par force ñëpp dañuy obligé di sol masque euh, man mi sama wàll bopp dama ko war a sol li tax solo guma ko mooy man seen maire la cest à su ma tollee ci sol ko dama ko war a wutal ñëpp te mënaguma ko wutal ñëpp waaye boo amul masque am na lu ñu la sant te loolu dañ cee war a góorgóorlu ñun ñëpp te wóor na ma ni suñu góorgóorloo ci mesures yi nga xam ne ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi ñu koy wax duñu soxla di yeggi foo xam ne ñu tëj ci kër yi wala ñu obligé ñu par force ñëpp di sol masque kon nañu topp ndigal yi te bàyyi tere yi lii nag yàlla na ko suñu borom àggaleeg jàmm en tout cas ñi ngi wax waa service d'hygiène ne rafetlu nañu seen engagement seen taxawaay maa ngi koy wax ci turu waa Thiès yëpp. le gouverneur de la région de Thiès chez le préfet chez le maire de la ville de Thiès chez le maire de Thiès euh, de la commune de Thiès Est Thiès Est et Ouest euh, maa ngi leen euh, di nuyu ci turu sunu kilifa. monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr nga xam ni moom ministère am moom moo ñu boot ñun service national de l'hygiène di rafetlu seen euh, taxawaay tey fii ci Thiès xam nañ ni jot amul temps tamit euh, seen emploi du temps yi tamit xam nañu c'est très chargé mais loolu yëpp gis nañ ni malgré tout jël ngeen ko pour mën ñëw teewal fii Euh, état du Sénégal loolu wane na taxawaay bi ngeen taxaw pour euh, xeex au auprès des population pour que euh, feebar bi nga xam ne dugg na fii ci Sénégal bi muy Covid 19 bi ñu dindi ko fii ak jàmm ak salaam suñu teewaay fii dafa nekk teewaay boo xam ni pour marquer le démarrage benn activité boo xam ni moom la ñuy wax pulvérisation spatiale. pulvérisation spatiale nag buñ ko déggee moom mooy dañuy désinfecter ci mbedd yi. mbedd yi parce que comme ni ñu ko gisee feebar bi bu mu duggee biir Sénégal ba léegi du ñu doon def suñu opération yi nga xam ne moom la ñuy wax euh, les désinfections dañ ko daan yemale si biir hôpital yi fi nga xam ne foofu la ñuy faje malade yi ak kër yi nga xam ni foofu la malade yi di jóge donc euh, bu depuis nag quelque temps gis nañ ni malade yi euh, dafa am ay xeetu malade yu bees moom moom la ñuy wax les les les cas communautaires cas communautaire nag bu ñu ko déggee mooy kaa yi nga xam ni feebar bi dal na nit te xamuñu si kan la ko jëlee loolu nag dafa ñuy gën a woonaat ni xëy na euh, doomu jàngoro bi xëy na mën na nekk fu nekk si biir dëkk bi loolu moo tax nag bu ñu gisee ni loolu demee na noonu ñu ni léegi il faut ñu génn si hôpital yi génn si kër yi nga xam ne foofu lay malaat yi jógee jéem a xeex tamit doomu jàngoro bi si mbedd mi mbedd mi nga xam ne foofu la nit ñu bëri fa la ñuy daje ak tamit yenn place publique yi nga xam ne maanaam moom mooy dem na comme gare routière yi wala yenn marché yi yooyu yëpp dañ ni dañ koy ciblé ñu traité ko léegi nag euh, traitement boobu ñuy def dañu ko ciblé surtout zone yi nga xam ni gis nañ fa ni am na ay kaa parce que bu fekkee ni da ngay def xeex da ngay euh, xeex doomu jàngoro bi xëy na boo demee benn région boo xam ni feebar bi feeñu fa amul cas donc mën nañu njort ni doomu jàngoro bi nekk fa mais fépp foo xam ni gis nañ ni am na ay malaat yu fay euh, yewoo loolu njort nañ ni doomu jàngoro bi mu nga fa quelque part loolu nag moo tax ñu cible pour euh, Thiès ville de Thiès en tout cas région de Thiès fi mu ne ñu ngi ciblé ville de Thiès bi pour traiter ko mais également aussi une partie du département de Mbour boo xam ne aussi nga xam ni dafa am ay malades yoo xam ne aussi ñi ngi jóge foofu ñoom tamit dinañ leen a euh, defal même opération bi opération bi nag du yem ci benn yoon parce que dañu que pour que di ko mën di def périodiquement loolu dina tax ba tànk doomu jàngoro bi mi ngi koy mi ngi circuler ñu continuer di def opération yooyu def xeet nag opération yooyu warul tax nit ñi nii nañu baissé suñu loxo parce que waa service d'hygiène léegi ñi ngi pomper déedéet loolu dafa nekk beneen pàcc boo xam ni daf si bokk si xeex bi léegi loolu tamit day gën a tax que ñuy gën a ñaaxaat population bi yenn Euh, kii maanaam euh, recommandation yi leen service de santé yi di jox pour ñu koy jéem a comportement yooyu ñu koy jéem a adapté pour di euh, moytundiku feebar bi loolu tamit dafa bokk ci xeex bi du pompe bi rek moom moo fi jëlee jàngo bi la ñuy laaj tamit population yi comme ni ko le monsieur le maire waxee léegi ñu continuer di saxee aussi digle yooyu nga xam ni waa ministère de la santé et de l'action sociale ñu ngi leen koy jox te ma bëgg rappeler waat rapidement rek mooy que ñuy farataal di raxasoog ndox ak saabu saa su ne suñ ko amulee ñu ut les solutions hydroalcooliques tare tamit di dajaloo dajaloo bi tamit nekk na loo xam ni dafa nekk du mën a gaaw euh, wàllante bi loolu tamit ñu ngi leen di ñaan ñu respecter mesures yooyu distanciation sociale bi ñuy wax ñuy faral di bu ñuy toog ñuy ku nekk di dend euh, moytu sa morom au moins mètre wala mètre ak lu lu lu tegu respecter tamit les mesures administratives yi nga xam ne autorités administratives yi jël nañ ko maanaam moom mooy état d'urgence bi nga xam ni oto yi aussi seen euh, ni ñu leen di wax seen chargement ñuy respecter nombre yi nga xam ni moom lañ leen autorisé ñi koy def ñi nga xam ne tamit dañ yore deux roues ñu ngi leen di wax ni ñu bañ di tegal euh, toppalante maanaam di supporter nit nga xam ne da ngay ne dend ak moom tamit ñu moytundu ko loolu yëpp booy sëqat aussi ngay bañ di sëqat nga sëqat ci sa biir euh, conc booy euh, yoree tamit nga war a sëqat nga jël sa benn euh, mouchoir nga taf si sa gémmiñ boo paree nga ut mbalit boo ko dugal boo gisulee nga def ko sa poos ba egg sa kër nga sànni ko foofu yooyu daal nekk na ay mesures yoo xam ne ñi ngi ñaaxaat population bi ñu gën si bàyyi xel nga xam ne bu yàlla defee nag at pompe yi ñu pompe yàlla mën nañu defal ñu gaaw fi génne feebar bi si biir dëkk bi loolu daal mooy li ma si bëggoon wax encore une fois madame le gouverneur monsieur le préfet monsieur le maire monsieur les maires monsieur le maire vraiment ñu ngi leen di gërëm vraiment di leen sant encore si taxawaay. bon produit bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu euh, utiliser généralement nag c'est pas même toxique. waaw mais aussi bu fekkee ni ni ñi aussi mën nañu moytu bu oto yi jàll moom moo gën mais aussi c'est pas un produit qui est toxique par rapport à la population parce que c'est différent des pesticides yi ngay uti yi ñuy utiliser pour euh, les insectes maanaam yooyu ak yenn kii yi alhamdulilah parce que je pense que moyens yu ñu yore actuellement en tout cas may nañu fi ne fu xee fu euh, feebar bi toll ñu jàkk ñu euh, jàkkaarloog moom vraiment de de xeex xeex bi comme nu mu waree. tey mbégte bu mag lañu am pour dalal euh, chef service national d'hygiène colonel Sarr muy ñëw fii Thiès après région de Dakar pour modifier opération de désinfection donc euh, Dakar moom lañ njëkkee tey ñu ñëw fii Thiès ciblé fi ñaari département muy département de Thiès ak département de Mbour pour euh, raison bi ngeen xam donc depuis quelques semaines déjà. Euh, Thiès enregistré na ay cas Covid 19 ñu ngi sant yàlla nag def na ñaar wala ñetti fan amuñu cas bu bees waaye taxul ñu bàyyi suñu loxo donc ñu ngi euh, nekk ci ginnaaw service bi nekk ci wetam tamit di woo population yi ku ci nekk nga jàpp si dugal si sa loxo bu baax lépp lu ñuy tere ñu bàyyi ko. muy adop lu ñu leen di wax ne lii moo baax tamit ñu jëm see gën a góorgóorlu adoption geste barrière yi colonel fàttali na ko léegi. diwuñ ko boolee ak opération yi ñuy def ku ci nekk ci li la li la nekk nga jàpp si engagé wu si ñun ñëpp ñu àndandoo xeex Covid 19 mu jóge fii si région de Thiès jóge si Sénégal ak yeneen réew yi mu nekk. naam am na ñenn Sénégalais yoo xam ne peut-être wax benn yoon du tax ñu dégg donc même la euh, disons euh, puissance. Euh, Euh, kii maanaam wàllub yoon yéen la may ngeen appliquer li yoon jëf surtout que yéen autorité administrative dañ leen gën a dooleel si xeex jàngoro bi mhm. euh, madame le gouverneur ndénkaane yi foofu lan la waaw bon depuis euh, mi mars en fait dans la deuxième décade du mois de mars le ministre de l'intérieur avec son homologue en charge des transports terrestres jël nañu ay ay euh, arrêté yuy interdire circulation interurbaine donc jóge ci dëkk bi dem ci beneen dëkk bi dañ ko dakkal am na nag ay dérogation ñu teg bi ñuy xoolee bi ñu commencé ba léegi demande yi bari na demande yi bari na trop pour jug dem te bu ñu joxee ñëpp autorisation ñëpp on va se retrouver avec les mêmes comportements les mêmes euh, attitudes yi nga xamante ne bu dara xewul loolu mooy am te mënul nekk dañ koy wax rek mënul ne dafa am lu ñuy xeex mu ngi fii te comme euh, li ko colonel waxee sànq ñu ngi ci euh, propagation communautaire te du lu gën ndax même des pays développés maintenant sont dépassés bu ñu demee ba euh, pays bu mel ni France di évacuer ay malades vers l'Allemagne ça dire que y a souci donc lu mel noonu ñaanuñu ko Sénégal moo tax propagation communautaire boobu dañ cee war a xeex te niñ ciy xeexee mooy mesures yi autorités yi jël nañu jë góorlu ñu jéem a euh, ànd ak loolu wëy ci loolu moo gën tere boo topp tere yi topp toppoo ndigal yi bàyyi tere yi tere yi mooy nañu wàññi dem beeg dikk bi bu mënee ñàkk. nañ ko bàyyi